docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye euh, ministre de la santé et de l'action sociale moo ma yebal fii euh, fekkee ak ubbi euh, waxtaan bu ñu yaatal ci tubaab ñu koy woowee congrès mu jëm ci lepp li xeex jangaro cancer mu bari ay xet euh lepp li nga xamné moy mooy ñi am fièvre yu diis yu yag seen yaram mën def ay at té di ki du jog waye muy soxla ko koy jàppale ndax yaram bi di xel bi di naat xol bi di sedd euh itam Euh, ndaje bi ñu yaatal ko ñoo xam ne dañoo jóge bitim réew euh, dëkk Afrique jóge bitim réew dëkk Europe jóge bitim réew dëkk Amérique ñëpp euh, daje fi ñu gis ne loolu bu amee kon Sénégal lu bëri la fiy taataane ci mbirum xam-xam lu bari la fiy jëlee ci mbiru weccante xalaat lu bëri la fiy jëlee itam ci gën a bëri ñi muy àndal ngir yokk dooleem ci lépp li nga xam ne moo jëm ci xeex jàngoro cancer loolu nag solo si solo bi moo di ne euh, sege ministère de la santé action sociale dafa am euh, këyit mu bind ñu koy oy euh, ci tubaab plan stratégique national de lutte contre les cancers kon congrès bi dafa ñëw dooleel plan boobu su ko defee ñun dinañu gën a mën a yokk suñu loxo ci liggéey bi ñun dinañu gën a bëri itam ñoo xam ne dañu mën a jokkoo ak ñoom ñu dëkk ci Afrique Europe euh, Amérique ñu mën a jox ak ñom ndax té nak médecine euh xam-xam la bo xamné ne euh, ñun ñup ñoko bok médecine du Sénégal médecine ci biir réew Afrique médecine Europe médecine euh, Amérique ci tuwab dañu ne la médecine est universelle kon tay dafa melni dañu dañoo gën a bëri nekk ay àndandoo. ngir gën a mën a xeex jàngoro cancer yi ci benn itam ngir gën a mën a taxawu ñëpp ñi nga xam ne feebar bu yàgg moo leen tëral ba mënuñoo jóg mënuñoo liggéey te ñu war leen jàppale. itam euh, yu mel ni bu amee euh, bokk na ci li nga xam ne mooy yombal liggéey bi ñu mën a xayma wala ñu mën a natt xayma li nga xam ne euh, dañ ciy njort ñu natt li nga xam ne dañoo jaakaarloo ak moom tubaab di ko wee ñu xam ñaata nit ñu am jàngaru cancer ci biir cancer yooyu yan xeetu cancer la ñaata nit ñu am yeneen feebar yoo xam ne dañoo tax tey mënatuñoo jóg mënatuñoo euh, liggéey waaye itam nguur gi ñaata lay def ci koppar ngir mën a euh, former ay euh, ay spécialistes nguur gi ñaata lay def ci koppar ngi mën a tabax ay kër docteur ak jënd ay garab jën itam ay jumtuwaay ñu mën di ko liggéeyee waaye itam askan wi nan la gisee euh, diisaayu jàngoro yooyu cancer ak yeneen yi nga xam ne mën nañu mel ni moom ci mbirum diisaay donc askan wi nan la ko yégee ak nan la bëggee euh, nguur gi gën leen a jàppale.